na junior na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa bu baax a baax li ñuy topp ci Leewtoo TV di kontaan ci yéen ni ma koy defee chaque jour Leewtoo ak nee naa leen à chaque fois champion leneen seeti ah tey ñu toog ak beneen daanaan beneen xale nee naa ne kooku du toog sa di tudd jaar-jaaram lu may tudd kan ak kan la daan ah waaye doomu Casamance la xale bi nga xamante ni moom mujjee daal kii di Moussa Ndoye fee ci arène nationale koy nuyu rek ko nan la préparé combat bi combat ak après combat bi fan la jëm ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa yi nga àndal yëpp. di santaat yàlla baax di ñaanal ñi génn àdduna yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana. nga bëre ki nga xamante ne nii mooy Moussa Ndoye jóge ci am ci ndam lu rëy xale ba nekk parcelle njaago or ba dañ ko wat a dee xëcc ndëndam dëkk la da nga gisee loolu ah man de gisuma dëkk bi xam nga loolu moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi lu dëgg mhm. ni muy taxawee ne jox la ma Sa Thiès noonu la beneen xale taxawaatee nag jox na ma franc daa ci dëgg <laughs> beneen xale waaw léegi sax Youssou na bëgg na ko mhm. Youssou Ndour waaw xam nga loolu dara làmb la c'est la vie waaw mais yaakaar naa ne daal mi ngi ci yoonam mhm. maa ngi sama yoon dinañ dem nag bu ñu làmb boole soq nag dégg li ma wax làmb ku ma mën a boole damay bëri mais encore daal du ma toll fii ma toll. di reculer waat sama paa. lu ko saa bëri recul la. da ngaa xeeb franc. xeeb ak làmb laay man làmb laay wax ak mhm. doo gis promoteur bu ko ñor. Moussa Ndoye moo leen boole daan nga Moussa Ndoye daan na Moussa Ndoye jot na war a jotagul wala yéen a ngi dawante ba léegi. dawante. Ah. Hmm, dawante amu ci. en tout cas l' man bëgg naa leneen lu bokkut ak ñoom. waaw d' accord léegi wuy ma nettal ci gémmiñ borom la dàqee xoolal caméra bi nga wax ma la moo nekk sa kanam instant bi li sama kanam. Mhm. Euh, lu yàgg dara di ko gis te jëf gi nag moo ma a wax ci bu soobee yàlla. da ngay làkkatu. làkkatuwuma mais jëf ji moo solo. dëgg yàlla. Mhm. lu yàgg dara incha allah di nga xam kan laa war a loo xamante ni dañoo bëgg dañoo bëgg mu leer mu leer. nit ñi ngi koy wax waa secteur bi di waxee nii waa secteur bee di waxee ne te nettali Olof Njaay na ci gémmiñu borom la dàqee Sa Thiès ngi nii ñu fool ci weewu béy avant combat bi yow Salif Sakho da nga yónni say supporters ñi dem kër Moussa Ndoye dafa def dara ba ñu jàpp ko ñu buggoon nga leeral ko ci askan bi naka la demee loolu. guddiñ tool da nga koy laaj ñoom ñooñu xamul tax. Mhm. mooy Mbacke boo yónnoon ay doomu aadama tay jii. Mhm. ma jàpp leen. Mhm. may njëkk def mooy dinaa dinaa leen wooyee ñi seen jëm bopp ñu filmé waxi kase mënoo cee téye nit police ci sax téye nit. Mhm. du dëgg ana ñooñu loolu leen def ak ban image nga ma mën a won ne ma kii la yow. Mhm. man loolu laa la bëgg a laaj. Mhm. su ma Moussa Ndoye daanoon loolu doo ko fa mos a mais defet dafa bëri lay. noo bi mu koy wax avant defet ëpp presse am lañ dem ne Sa Thiès li muy def na ko bàyyi ndax mu ngi yónnee du benn yoon du ñaar yoon. ñu laaj ko ay supporter ñu wax loolu ma laaj sa supporter barki démb Ndiaye ma fu ñëwee mu ne ma Ndeye Mbacke bu fekkee Sa moom mooy yónnee loolu yàlla bu Sa Thiès am ndam. man de bu fekkee maa fa yeba yàlla bu ma tekki ba faw yi nga wax ni yéen kan démb laa toog fii am ku ma ko wax ay reesa dama jàpp parce que dafa ne ma da nga yónnee ay nit ñi jàpp ñaañi téye kenn ki man laaj ko ana kenn ki mhm. bu ñu ko jàppoon di nga nam si profit ñi di wax ak yéen mhm. ndax ñoom ñoo ko sina bi Ndeye Mbacke yàlla ma yàlla baal ci baat bi mais Sénégal dafa mën a fen Sénégal lu fu nit def ñu Sénégal rek génne wan la ko su ma ko defoon di nga gis ci Sénégal yi wala ci photo yi ñu partagé ko partout mais dëgg moo gën fen man conseil boobu laa leen jox sa relation ak nga xam ni mooy Séni lan la Séni Séni Séni dañoo yàgg Séni dañoo yàgg ba dara doonul dara ñii ne ci école bi di am ay góomu robaale li yàgg na de mu ñuul kukk ma ñuul kukk mu nekkoon taay film bu sew ma nekkoon taay film bu sew. léegi ngeen pataaw léegi nag daa fuuy xam nga demoon di ama dem ci benn réseau di liggéey. Mhm. lekk yi neex yi topp ko mu toll lu ko neex. Mhm. léegi nag mu yab ma mais sama xarit la suma nit la. Mhm. ndax ba papaam avant moo dem yàlla xam ne ñi lañ toog man ak moom ñuy toog di waxtaan ak waajuram mu dénk ma ko même bu dul dénkaane bi rek yéene gi ma am ci sama bopp ni ma ko seeni di mu ëpp. kon Sine du sama du sama xarit sama doomu nday la. Mhm. voilà. anta fan si nekkoon yaraax. <laughs> yaraax moom boo fa duggatee instant bii. yaraax non na métti ci de. wallaay du métti ba mu tax. Mhm. ñun dañu mhm. boole jeex na dañuy delluwaat ci jàmm. Moussa Ndeye war leneen damay seet leneen. dëgg parce que àdduna noonu la tëddee. ñun du ñu du ñu du ay mbaam du ñu ay ay dof ay nit lañu. làmb dañ ko former ngir tekk ci. mais dañoo njëkk a taxaw ne làmb day boole. loolu di boole nag loolu la ñuy sàmm. làmb moo tax mu boole ma Moussa Ndoye amoon sama teranga. làmb mooy tax tey Moussa Ndoye di xam ay nit yu baax. ay nit ñoo xamante ni dinañ la taxaw dinañ la jàppale ci lu bëree bëri. kon ak lu mën a xew rek ñun dañuy rafetal lépp. xëy na nag du ñàkk am na ñoo xamante ne li ñuy supporté dafa métti. parce que bëgguñu musaandooy ñàkk ñi bëgguñu Sa Thiès ñàkk buñ ñàkkee duñu ànd ak seen xel 100 pour cent dañuy mujj obligé rek. def seen loo xamante ni mooy loolu mais na ñi ñooy comprendre te xam ni. Mm-hmm. làmb làmb la te mbër bu ci nekk mu di def mu yor esprit nit. Mm-hmm. loolu dama koy concession mbokku mbëri. Mm-hmm. ñu xam waxee xam fi ñuy waxee. parce que mënuñoo toog ñuy wax mbër yow mi mbër bi téye micro. nga jël sa gémmiñ di ci wax lu la neex. te xamoo ay kilifa ngay seetaan xamoo ndax borom xel mi ngi lay seetaan xamoo na borom xam-xam mi ngi lay seetaan. parce lu bëri dañ ciy naw lu doomu aadama. suñuy kàddu. ñu bëri dañ koy déglu suñu kàddu ñu bëri dañ ci roy kon moo tax lépp li ñuy wax rek war nañ ko xalaataat bu rafet soow dafa am showbiz mais showbiz taxul mu ñaaw mukk mukk mukk mukk dafay neexal mais nañu bàyyi ñi nga xamante ni ñi nga xamante ni la xamuñu waxin man ñoom laay conseil ñu bàyyi waat xel bu baax ñu xam ni ñu waxee mhm. seeni naaw ñu xam ne seen naaw la la wax ko wax ji tegg ne bi ñuy showbiz ñu showbiz te bañ a dépassé sa nawle nga dem toog. Mm. maa ngi koy sant bu baax a baax combat bi ñaara million moo ci dugg. ñi ci dugalee mi biir bari nañ ci. mystique bi ñaar nga fere. dëgg yàlla xaw ma nu mu toll. xaw ma nu mu toll parce que dañoo yaakaar ndam rek te képp ñu wax ni nii da ngay defoon dafa am ndam dañ ci jublu. Mm-hmm. waaw. Sadio pare na pour génn réew mi dem entraîner bitim réew wala fii lay des. actuellement moom mënaguma génn ndax dañoo amaat benn dañoo amaat yeneen combat ñuy waajal mais benn bi moom ba passé moom incha allah bëgg naa dem. mooy maanaam boo tëbee dal ci xal desandalaat beneen tëb le 31 juillet. voilà ngeen am Bombardier. di ko ñaan tamit yàlla may ñu ci ndam. waaw Bombardier moom maa ngi ñaan yàlla mu daan jël bu yomb te gaaw ñu seet leneen. jël bu yomb. waaw noonu la ñaan yàlla Bombardier yàlla na jël bu yomb. ci barke alxuraan ñu seet leneen. ñu xaar ñu xaar tuuti làmb ji daw ah. waaw mbër mi ko bëri daal dañu ñu koy commentéral. pétale yaa ngi tàq mu ngi dem pétale yi bëm bëm bëm bëm voilà. Mhm. ngi ngi noonu doxala. Ah, yaa ngi tàq ah. pétale yaa ngi tàq de. ba dafa neex nag dafa neex même Mbacke dafa neex. état la lamb quoi. nga mel ku gis nga loolu mooy fàttali ko de étalante pétale yooyu. di nuyu waale marché Diagne Thion si tamit ku baax la. Mm. parce que fi arbitre bi sifle na. Mm-hmm. moom mu dox benn pas taxaw. man ma taxaw fi ma taxaw ñu ngi léetoo nii mais boo xoolee kenn bougéwul kenn ku ci nekk yaa ngi léetoo ci kaw bi. lu musul am lan moo tax nga xaar. waaw li da dal na sama xel moo tax ma def ko rek du la wala. waaw sa du conseil la tamit mais dëgg yàlla bu loolu sax yàlla xam ne nii laa woon a bëre mhm. waaw. Sa Thiès mosoo bëree nii at bi dana prip nga tëb ci kaw buuroon. waaw xam nga da ngay toll benn mois boo xamante ni da ngay def yi fi xale. Mhm. waaw yëfi xale na du caado yëfi cuune la mm-hmm. déedéet da ngay dem bëri wut ngir nit ñi mën laa bàyyi xel mm-hmm. mais nekk ndaw dama ko fenn toog di xaar mm-hmm. dara doo ko ñu doxal yi a ngi ñu ngi leetoo rek waa fii ñu ngi leetoo ci air bi mi ngi taxaw maa taxaw ñu ngi leetoo rek fii ma dox naa benn pas ba ñaari paa xaw wàcc tuuti sama tànk ci la avancé waat tuuti maa ngi avancé di sàcc tuuti moom mi ngi sàcc def latéral moom it ci laa ko fekk ci latéral bi ci wàcc sama tànk mën a dox sa fii dama jàll sàcc ma rappel ma ci laa téye devantiru ngembam mais ba may kii euh, dafa naa sama loxo maa ngi ko sol ci laa ko fàkk wër ko ndomb ba ko kii mu ma pivoté pour prise ma yaakaar na ci la teg ensemble moom. nga bës ko ci waaw parce que wóoru woon moo tax ma ne naa bësaal bopp bi en cas li ci mënut am rek. na yegg na yegg na yegg suuf rek moo gën a wóor quoi. Mhm. ci profité du nuyu Xaarim euh, Ndiaye Giraan. François Paal ni ko baax ni ko sonn ci combat bi jël benn doomu aadama bu baax boole ma ak moom mi ngi dëkk fii Malika. benn transfert bu baax ma bëgg ma wax trop mais ni ku baax la da dëgg yàlla. Marcel Diagne aussi tamit maa koy remercier bu baax a baax baax mm-hmm. kontaan naa ci moom. Mm-hmm. service bi nga ko daanee par loxo wax. non damaa dem encouragé ko parce que dama xam nit la xam nga ni ku ni ku ni ku la ni ko nit nit ku nit la quoi franchement parler waaw. Mm-hmm. ma dem ko def ko nu daan def rek. waaw encouragé ko ñaanal ko aussi. Mm-hmm. Sa Thiès daan daanaka loolu moo nekkoon ah dañuy dem ci keppaandaru émission bi lan ngay tàggatoo waaw di sant ak ñëpp mooy suñu waa école di sant suma papa di sant suma yaay euh, di sant suma famille ñëpp. Mm-hmm. waaw waxatuma la famille bi sama jarbaat yi nekk ci kër yi sama xarit yi nga xamante ni ak sama booy yi nga xamante ni mbedd yi fii lañ daan fanaan. Mm-hmm. franchement parler tegu ma leen coono googu nag. te wonu ma leen lu tax ñu def ko. mais coono googu yëpp maa ngi leen ci jégalu baax a baax a baax di jégalu suñu dëkkandoo yi parce tamit xam nga dañ leen ci lu nekk jibiloo aussi tamit maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. Mhm. sama grand bu baax la moom it day sonn ci combat bi. Mhm. ak ñi nga xamante ni taxawu nañ ma guddi ak bëccëg. waaw mi njuufa xam nga maam moo ma maa ngi leen sant bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne dañ lay jàppale te yàlla rek tax. Mhm. doon sax xam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di nuyu sama soxna di ko sant moom it euh, njaboot gi muy buri tamit di ñëpp maa ngi leen sant. awa mooy kan sama wujj yow daal de toute ah, <laughs> ba pare wax nga daw yéeg. ah dama doon kàpp xam nga foog kii ko dalal xelam yooyu noonu comprendre. mooy Mbacke yàlla baax na mais sant naa ak sa équipe bi nga ànd ñëpp. franchement parler suñu waa école de lutte bi nag ñëpp maa ngi leen sant. Mhm. maa ngi gërëm ñëpp papi pata maa ngi koy gërëm bu baax El Hadj Pape Badara commissaire Séni Simel euh, gaaw Karfat moom day wër rek. nga xamul ci lu mu nekk. Karfat fi ni tàngal daan saa ci def ndànk. Eh, waaw ko mhm. ko ndam ci combat yu mu mhm. nag. yi mu engagé ak des àddunaam carrière bi yëpp mm-hmm. combat bu mu ci songati yàlla na ko ci yàlla may ndam mm-hmm. ama yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw Aziz Ndiaye mm-hmm. mention spéciale ndax combat bi bu taxawee jëm moom la coono gi ci daj yàlla xam na ni lañ ma fay wala jox ma ko ci avance def na lu ëpp loolu fayal ma ko ci ay maaraaf ñu ñaanal maa ngi koy sant bu baax mook Baye Ndiaye Baye Ndiaye dem day taal otom fépp mu yaakaar ni rek buñ fa deme am fa ndam rek ay million am lay génnee dem jox ma ko. def ko ci sëriñ def ko ci sama yaram. Kor Ndiak maa ngi koy sant bu baax moom it sonn na trop lu ne mu defal ma ko ne mu taxaw ma ko. franchement maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. ñoom Soore ñoom Xaliir xam nga ñoom Badou. maa ngi sant ñëpp ndax xam ne ñoom dañuy sot fa ak ñoom fu njabootu bàyyaale njaay bi yëpp maa ngi sant di mm-hmm. dëgg yàlla aw ma seen fay xaar Ndiaye Zirane. xam nga sonn na trop da moom yaraax la dëkk dañ jàpp la waa yaraax mais xam nga sama nitu bopp la mhm. combat bi sonnoon na ci trop di ko gëme si baax a baax Marseille sant naa ko di gërëm Père Gaston mhm. ñaanal fan yi gudd wér gi yaram lii mu sumb ren mhm. yàlla na mën lu ko ëpp déwén waaw teg ko ci loxo makan comme moom mooy booy bi <laughs> formé na ko yàlla na àggale li papam mën ak li pa taxawaay papam am yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na ko yàlla gën a kàttan parce que tamit baax bu weesoon baax rek danañ ko wax ni ko baax waaw dëgg yàlla kontaan naa trop mhm. yàlla na yàlla defal jàmm rek. Mhm. bëgg naa ci moom ah, moom Salif Sakho di ko kontaanee bu baax a baax di ko ñaanal ndam li jug ko waaye damay sant di gërëm ma fama ah, Xarija damay bëgg ci moom man ak moom petit ba grand dama koy ñaanal jàmm ju baree bari li bëgg ci sëyam bëgg njabootam bi yàlla defal ko ko waaye naar dama lay bëggee seeni Mbadara damay kontaan ci yéen bu baax a baax waaye sëñ Fallou damay bëgg ci yow sama jarbaatu boobu bi kontaan naa ci yow lool lool sant waa kër gi cat ba cat di leen ñoom ñëpp sama wujj bi maa ngi bëgg moom bu baax a baax Sa Thiès génn diggante waaye nag awaak nday la day leer kenn du kenn sama trio bi la du mën a ñàkk nday Mbacke Diop mu moom maa ne Mansour Fall waaye faama sama caméra woman bi damay bëgg ci yow jiidi kebe sama magu bopp boobu kontaan naa ci yow lool lool gis naa lépp ah, jàppale beeg ñaan bi yëpp a ngi ñëw affaire bi du dara liggéey la rek liggéey def sa poche na mbëri di entraîné ñun ñuy liggéey donc di di ñuy waale Talla Meng Simon waaw nga jégal ma ndax ñoom ñu baax lañu Talla dama lay bëggee dégg Simon Talla Meng maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax xel nag day fatu ah andaw waa andaw wax naa ko andaw Pape Mame Moussa Fall ñoom ñoom moom dañ ma leen xamee waaw dañ ma leen maa ngi remercier ministre de la tudd jeunesse ah Néné wax naa ko sànq aw ma am na tam suñu benn jigéen bu nekk fekk ministre de commerce mhm. sama yaay baax la moom it combat bi mu taxawee yàggul mi ngi Kër Massar maa ngi koy ñaanal lu mu sumb foofu Kër Massar yàlla na daan mhm. parce que liggéey rek am solo la toute façon. teraanga ñu jox ko 500000 rek. baax mhm, naa jox lan la 1 million pour may mu njëkk. jamal <laughs> jàmm rek. yéen a ngi koy dégg ah, noonu laay def jox leen dig daje ëllëg ci Leewtoo TV ak beneen champion incha allah jaajëf. Sathies xeex na ñoom ñaar Sathies Boy Niang jàpp na ko mot na ko ñoom ñaar jéggi na su yoon wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention Sathies ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sathies Boy Niang daan na ko